à la fin de notre émission. Mm. Mm-hmm. def nga clip. pas encore. lan moo tax actuellement clip non non amul li ñuy donc c'est c'est à être moyen yi nekkaguñ fi comme il le faut. comprendre nga parce que j'aime pas di def ay n'importe quel clip ah que sama son du n'importe quel son waaye booy on travaille ah ñun liggéey de waaw dañuy liggéey liggéey donc. maa ngi fii nii sama sama label fii nii Lamzo Beat bi nekk fii South business fii nii la nekk a Grand Yoff fii tout tout tout fii nii rek foofu la foofu la studio bi nekk Lamine nekk fa nekk aussi jàmbaar nekk nekk nekk ku bëgg li muy def ku fonk aussi li muy def jàmbaar la moom moo def yëg-yëg bi moo def cover cam bi moo def champion bi moo def yeneen affaire champion bi sax génne ni génne guñ ko peut-être dina génn euh, ci ci temps yi rek si lu yàggul incha allahu ak euh, ak yeneen gars yi xamante ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi ñooñu ñu ngi ñu ngi côté parcelle gars yi xamaguñ leen donc ñoom ñu ngi aussi ñu ngi jàpp ci liggéey bi ku ci mel ni grand colo grand colo moom foofu la nekk ak euh, entourage bu Pape Sidi Fall bi gars yëpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi macha allah ñu ngi jàpp si liggéey bi bu baax a baax Pape Sidi Fall ah. Pape Sidi waaw oui. waaw nekk Baye Fall bu baax a baax nekk nekk nit ku baax non du sama dara waaw ah, yàlla mooy yàlla mooy boole parce que man grand clos laa fo doon dem di ko seet. grand clos laa doon dem foofu di ko seet et tout si affaire lu jëm ci liggéey bi yàlla dogal ñu tase foofu noonu mu nekk nit ku baax nekk nit ku oyof aussi ñu bëggee bu baax a baax a baax a baax macha allah waaye duñu duñu conseiller comme ça nit ku baax la macha allah mm-hmm. nit ku baax la nit ku oyof clip dina ñëw incha allah yi rek mm-hmm. waaw temps yi rek incha allah euh, champion bi war a génn temps yi rek incha allah a que ah, liggéey bi mu ngi fii liggéey bi mu ngi fii. Euh, champion bi du champion wu jéem a. champion wu aw ma lu may reprendre ci moom. champion ba mu koy def xam nga yéen champion jiba bi mu ngi génne ci albumam bi. champion ba mu koy def album bi génnagul. kon yow bi nga doon def champion jéem a dafa champion. peut-être. mën na aussi tamit mën na ko def avant ma koy def. ñu bañ a <laughs> ay <laughs> yàlla euh, <laughs> bi hommage la rek. waaw hommage bu ñu ko defal loolu defal ko en grand juba parce que war nañu li tax ñu war ko mën defal hommage. def ko ak aussi. Hmm. waaw mais bëri na comme comme kii bi ma lay wax nii yëg-yëg bi ma lay wax nii. comprendre nga yëg-yëg bi yëg bi sama sama musique la maa def sama musique maa sama son maa def lépp yaa ngi ndekkee mbëggeel bëri na lu mu dof loo sàcc nga sama xol yo bàlle xel mi le man sonn naa ci ndaw le man sonn naa ci xale bi le boo fi nekkul woon fu ma bu ma la xamul woon nan lay dundee billaay wallaay ma bi boy li ngay def ci sama biir xol mag yàlla ñoo ko xam boobu mooy yëg-yëg yee <laughs> taxale <laughs> uh-huh. ñu euh, mm-hmm. ok doomu jàmbur xamoo ñu ko ngémbee grand place su place nga topp dërëm di lëmbee yamutuñ ci yàq deret de kii wax ju ñaaw da lay wóobu si sëriñ ne ko de ma xel mi naaw lan moo fi jëriñ jikko yu bon yàlla bindul yamale te wërsëg yi boo lu tax su ma jitoo nga may joxoñ ni ma mel du kenn yàlla moo ko def man li si ab wala caravane paas maa yegg sama oto yow ngay dégg kanam paas lu ne ngay dégg ñuy wax di yàq der dundal yàlla baax na lépp dina leer fightal sa life ndax mbamb ray weñ bul mës a xaddi ay life am so yeah waaw <laughs> waaw Jeeba nga <laughs> mm-hmm. te muy dëgg ngeen uh, am benn mm-hmm. ngi noonu rek mm-hmm. uh, en fait tu mhm. euh, jox ñu ay indice wala jox ñu ay signes que ni mhm. di nga génne dara temps. waaw bon ci lu yàggul rek comme exemple champion bi dina génn temps yi incha allah champion bi euh, man faaw ma jóg faaw ma liggéey ba dee mën a teeral man faaw ma jóg e faaw a aw ci doomam. liggéeyu ndey de añub doon la dëgg la pexe noonu lu am la waaye métti métti yi teeral yaay moom daf ma woo ma ñëw mu ne ma sama doom boo xaadiwul bés dina ñëw dina ma sa baax moom daf ma woo ñëw mu ne ma sama doom boo xaadiwul bes dinga ma sa doni champion kon faaw ma et faw ma wuti ji sama ndax faw ma doon champion dégg naa nga naan dinaa torox waaye bur bi yàlla doomi aadama rek doy bu dee bur bi moom xol fay fa mën a jaar faw yoon bi leer njàmbaaru baay rek ngay gis ci sama ji njaay jaata warul tiit warul ragal lu mu songu daan ko ndax xadar ga muy demee ah boobu mooy champion bi. ñun dañoo war a impartial mais. macha allah léegi. Uh, lan ngay wax sa fan si ak uh, lan ngay wax ne fa. waaw mais nañu xaar Boy Niang ci lépp. tu vois dañ xaar Bon ci featuring yi dañ xaar Bon Ndiaye ci ay affaires yu bari ah, ay affaires yu extraordinaire macha allah dañ xaar Bon ci concert yi dañ xaar Bon ci affaires yi surprise yi bari nañ donc incha allah dinañ génne ay yu bari bari bari yàggatul dañ xaar Bon Ndiaye ci ay surprise yu bari encore une fois sumu sumu gars yi ñoom dañuy jàpp si liggéey bi you know gars dañuy jàpp si liggéey bi vraiment dañ ciy sonn te sonn ñu ci ngir en retour ñu mën a am dara dañ ciy sonn te tax comprendre nga peut-être c'est pas donné à tout le monde nit ki mën nga mën nga mën nga mën nga en fait mën nga louer siège mën nga louer basse mais amul doomu aadama kenn mën ko louer te gars yi ñoom dañuy jàpp ci liggéey bi te yàlla tax mafia l'unique bi comprendre nga donc ma leen ni béggee bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni vraiment je suis su je suis ci ci ñoom comme am leen comme étant frère am leen comme étant ay ay jàmbaar lañu ñu bëgg seen waajur yi lañu ñu fonk seen waajur yi te ay doomi aadama yu baax lañu comprendre nga ku dee fii ak sa bàmmeel ñii ay nit yu baax lañu ay nit yu oyof lañu ay doomu aadama yoo xamante ne allah comprendre nga mën nañ la defal dara te dañ te doo dégg ñu ci wax doo dégg ñu la koy xoolee quelque chose comme ça te loolu en fait xool moo koy def am-am du joxe xool mooy joxe tu vois xool mooy joxe donc bu la yàlla dimbalee nga am yëg-yëg boobu noonu tey jii en retour nga di si viser dara loolu alhamdulilah la loolu sant yàlla la yàlla moo koy dimbalee jàmm nit am na fi milliard te mënul yëkkati fii dërëm jox ko ki mu gën a bokkal comprendre nga donc donc c' est c' est ça quoi vraiment bu baax a baax a baax a baax a baax. non mais ah, mais c' Hmm. booyu grand yoof lañ macha grand lañ samay grand lañ laa hmm. mën a di leen remercier ñoom tamit bu baax a baax parce que ñoo bàyyi